ñu tàgge woon ko lu yàggul dara ci réseaux sociaux yi Alioune Badara Diagne ñu gën ko xam ci turu Golbel Diagne génn na àdduna foofee ca Ndar ginnaaw bi ko ab feebar bu yàgg tërale woon na li leen nekk am nouvelle bu triste ci askanu Sénégal gépp rawatina ci waa Ndar géej lu yàggul dara sax bi ñu waxee woon ni dafa génn àdduna ci réseaux sociaux yi moom Golbel Diagne jotoon nag génn doon xamle ni mu ngi sant yàlla bu baax a baax ca boobu lay sotti sax mu ngi ca doon waxaale ni heure bu yàlla nammee jël bakkanam dina ko def ci ginnaaw bi sax jotoon na organiser ab wàcce kàmmil foofee ca armeel ya nekk ca Marmiyal nekk ca Daaru ca Saint-Louis ca bis boobee sax yëkkati na fa ay kàddu doon xamle ni na ñëpp xam ni waajal na boppam ci dee jotoon na jënd lépp ngir ñu waajal ko bis bu génnee àdduna comme ni ko lislaam santaane ba tey tamit doon na sàkkuwaale ni bis bu faatoo bëggul buñ koy denc ji ñu jël oto dafa bëgg nit ñi gàddu ko teg ko ci balankaar di dox ba keroog ñuy àgg ca armeel ya yi moom la Alioune Badara Diagne mébétoon laata muy àdduna Golbert Diagne nag lu ci tempsam mu ngi ko doon def ca armeel ya nekk ca Saint-Louis doon seet seetal ak jàng alxuraan ngir ñaanal néew ya sant suñu boroom ndax lii du juddu du jàng du taar du alal du doole te nit mënu ko man dama gént rek dem ci ay kilifa ma defal ma def loo def pendant dix-neuf ans yàlla moo ci teg loxo et c'est parce que aussi dëgg la buñ ci raxoon leneen du dëgg du agsi fii ndax bi ñuy démarrer ak gis li xew tey yéeme na dama ciy gërëm sama nawle yu góor ak yu jigéen yi surtout jigéen ñi la mobilisation des femmes dafa ma amal solo ñu leen di gërëm bu baax ci ñu takkoo parce que à huit heures déjà fii presque jigéen ñi feesal nañu ko te boobu góor ñëwaguñu gërëm l'imam ratib de Saint-Louis et l'ensemble des membres yi bokk ci association imam ak ulema ñi jàngale alxuraan di jiite jàkkee joon ñëpp ñëw amul ku des ñëpp ñëw gërëm administration le gouverneur Ibrahima Sakho le préfet Alioune Badara Samb les colonels bu comme zone militaire comme légion gendarmerie euh, douane sapeur pompier commissariat de police ñooñu dañu accompagner matériellement jox ñu ay ay barrières dañu ko abal abal ñu oto ñu jëli suñu ay bâche indi suñu ay tànn gërëm Alassane Alassane bâche laa kaaw parce que xale bu fukki at ak juróom-ñeent moo jëkk di indi ay tànt di ànd ak man di tànt su ma ko fayee mu ni ma def naa ko addi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam daaw Mansour Faye moo ñëwal boppam ni ma naa la jox senegal Sénégal bâche binduñu ko leetar amul sponsor amul dara foog mu jox ñu ko ñu ñëw installé mu tollu fii mu rafet lool ren mu ñëw nii la ma defoon daaw dinaa ko double man xaw ma safu tànk yi xaw ma te li fi nekk ci nit ren moo ëpp trois fois li fi nekkoon daaw kooku it dañ ko cee gërëm ku ma xam-xam ni man duma ma politique bokkuma ci arène politique bokkuma ci benn parti senegal mais ku santul nit doo sant te ku gis nen daani ne nañu moo ko def ma wax ko te ñaan naa ko sax leneen bëgg naa moom ak ñeneen ñi fi nekk nu dimbale ma ba nu am ay bâche yu ñu jënd mu nekk bâche kaamilu ndar fi rek cinquante ans at mu nekk bu koor jotee ñu tijji magasin bi génne bâche yi ñëw teg dootuñu ko àbbi Dakar parce que ku jéggaani seen kër tëggul te dama bëgg suñu kër di tëgg loolu dama koy ciy gërëm gërëm naa administration gërëm naa ulama yi sant sama nawle yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu wax laa ilaaha illallaah Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam mais feeñal c'est que ni ma ko waxee fii ñëpp ko gis nga ji dërëmu benn doomu aadama bu yeewoo Sénégal nekku ci ba fi Abdou Diouf nekkee dërëmam demu ci bi Abdoulaye Wade ñëwee dërëmam demu ci Macky Sall bi fi nekk dërëmam demu ci kii Golbert jullit ñi yàlla alxuraan termine moo tax ma ni c'est la plus grande manifestation religieuse ku ma bëgg defee rek jéemal def lii tawul bi ñu lettre de soutien kuy ni damaa dajal julli ñi damay def manifestation religieuse foog lettre dem ngay xaar ceeb xaar dëwlin xaar xaalis xaar délégation non non ñun julli ñi la ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'objectif est atteint li may dénku sama naw rek moo ni euh, même ndogu li ñuy toog ca kër ga joxe ka wóorul ni tey daañu ko yàlla rek a xam daal maa ngi dénk sama nawle yi te di feeñal noo ma gën aussi parce que toog rek ne kaay ñu wàcc ci camion ku nekk bàyyi soxlaam ñëpp ñëw kon ñoom ñoo ma waaye ñoom ñoo ñu gën maa ngi leen sama bopp bu arrivé ma guddee àll te dana ñëw ndax ku di naf si say xetul mawti nga la ndar na ngeen am fulla ak fayda bu day na bu mu réer ma nekk feeg ma jógee na sax rek waaw maa ngi lii daal moo doon sama sama message

غير المغضوب عليهم ولا الضالين rédaction bu Tactic SN ñu ngi koy jàllee Malal Junior Diagne ak la famille Diagne. maa ngi la fay. jërëjëf Guissé ñu ngi lay jàllee di ñu bokk di suñu papa El Hadj Golbert Diagne. Hmm. waaw xam nga man dama nekk fu mu ne hmm. man li ma mën a ko daal moo di moom. Hmm. ku bëggoon dëkk bi dem na ku bëggoon ndar d'abord. dëgg Colbert doomu ndar la d'abord la première chose c'est Saint-Louis qui a perdu. Hmm. c'est vrai que Sénégal perd na réew mi perd na waaye ndar moo moo ñàkk. Hmm. ndax Colbert xamul woon buggul woon lu dul ndar doomu ndar la woon koo xam ne ndar rek moo taxoon muy jug guddi ak bëccëg suba ak buy tëdd ndar la bu yeewoo ndar la léppam ndar donc Saint-Louis moo perdre doom loolu la war a jikki jàpp li ci des moo di dafa di nit koo xam ne waajaloon na boppam démb te tey dikkul boo demoon tey ca maram yàlla boo ñëwee suñu fekk fi nga xam ne mooy li mu defaroon boppam ba pare ne fii lañ may denc kon kooku waajal na boppam beneen bi ci des moo di dafa di nit koo xam ne icône la ci biir ndar maanaam Mm, Golbert daal moom moo doon moo doon polariser zone ndar yëpp. Mm. booy boo nee ndar rek boo nee Golbert nee ndar. Mm. moo doon boo moo doon ndar ci boppam. dëgg la. Eh, di nit koo xam ne nit ku baax la. nit ku woyof la. nit koo xam ne relation humaine yi daf ko téye woon nëpp ko eh, man mi wax ak yow su ma demee ba nekk ci rajo ba nekk journaliste ba nekk scénariste ba nekk li ma doon gannaaw suñu borom ak ñaan waajur Golbert la mm-hmm. man Golbert moo ma dugal ci rajo. Golbert du ma fàtte bi ma duggee palais de la république ci kanam ab Abdou Diouf. Hmm. ñu toog Abdou Diouf ne Daouda yow nan nga def ba xalaat di bind scénario bu mu leen nii nan ngay bindee Bareego lu la lu la inspiré bi nga bind Bareego ma ne ko ah ba bind Bareego rek Golbert ni si tonnet ni ko président mu ne ko naam mu ne ko Daouda bi ngay waxal lii RTS la nekk amul décision. Hmm. président ni ah mu ne ko mu ne ko. à partir d'aujourd'hui ab Ablaye Dieye mu ne ma mën na defal leen ko taw taw de décision. Hmm. sama décision si Golbert la jaar gannaaw yàlla. dëgg la muy sama xarit. Golbert hmm. musul def lenn lu ma yëgul. Hmm. musul toog lenn lu ma fekkeewul. man ak moom guddi man ak moom bëccëg man nag moom suba man ak moom ngoon. def nañu lépp. dëgg la. Euh, métti na trop nag waaye suñu borom ñii la ko bëggee woon te kenn mënu ci dara. dëgg la. àndandoo bu yàgg. boo xam ne jiitu na théâtre bi mu nekk sama mag bi seet sama mag bi naan Edouard Valfroisé si doone ba di ñu ànd ànd bu rafet ba ñu yàlla boole ci pees mu uuf ñu jàngal ñu métier bi encadré ñu formé ñu dans le tas ba tey bu ñu waxee àddina yëpp nangu kon loolu yëpp dañ ko koy cërale muy sama mag ju baax ba pare nekkaat sama coéquipier ci li nga xam ne mooy théâtre di Bara Yegum acteur bu ñu ma booleel ma joué moom day fekk ma da metteur en scène bi def ko rek mais fa may gën nekk à l'aise complicité bi may am man ak moom suñuy joué dañuy mel ñu bokk ñoo xam ne sama jëkkër la am na ñoo xam ne dañu daan déplacé di ñëw sax defe ne c'est mon mari ci dëgg-dëgg tellement on avait une complicité mm-hmm. ci li nga xam ne mooy théâtre bi ñu daan joué nekk koo xam ne itam nit bu woyof la. Mhm. nit boo xam ne xaleel mën na ko téye trente minutes ci mbedd mu taxaw taw a dem ba nit ñi dañ daan jaaxle sax lépp lu nit xew la ci ndar moo ci gën. Mhm. muy sur le plan des autorités muy sur le plan de du du du du Saint-Louisien lambda bu mu xamul sax ku mu dégg ni faatu nga moo fay jëkk. Mhm. mooy jëkk taxaw moo koy jëkk annoncé si rajoom bi kon nekk nit koo xam ne dafa jaxasoo woon ak population bi ba nga xam ne dafa bokk si dans la vie de tous les jours de chacun d'entre moo tax tey ma ne guy gi daanu na. waaw mhm. bab bi effondré na wax dëgg mhm. yàlla. dëgg la ndax xaw ma ndar nan la ñuy def sans Golbert. Mhm. ndax lépp lu ñu xewle ci ndar bu taxawul dañuy defe ni ñun dara amul dañuy defe ni dara du baax. kon nag yàlla bi nga xam ne moo ko jël ah yal na teeru ci àjjana yi gën kawe. amiin yaa li ma ci metti rek mooy période bi nga xam ne moom la tombeel coronavirus mi dëkkoon tey ndax kenn du fi xaj. dëgg la dëgg la Sénégal kenn du fi xaj ñëpp ay jël ay mérité na hommage bu ni toll dëgg la. wallaay wallaay wallaay loolu rek moo ñu metti ñun ñëpp parce que daf ñu def ñu am lu ñu sasoon. dëgg la ci rajo Ndar ne ñu bés ma faatu. Mm. dama bëgg ngeen jël ma. Mm. bu ma kenn patam patamee nañ ma def nànk. Mm. defar ma ba ma rafet. te na mm. ñëpp sañse. ngeen gisol seen cuub yi rafet di sañse ba mu rafet ma ne ko yow lii ngay wax pour lan mun ma mari ma dem déglu ma. yow Dora Ndiaye déglu ma. ngeen wërale ma ci place Faidherbe bi teg ma. ñëpp ñëw def seede. ngeen yóbbuwaan ma bu buntu rajo Ndar ba ma doore. ngeen teg ma fa. ñëpp génn te def hommage ngeen soog a may continuer booba ndeysaan amagul rajo Teranga ngeen soog a continuer yóbbu ma marni yàlla te Golden dafa defar. Mm. tombam ba pare. dëgg la dëgg la. dafa defar tombam boo duggee buntu marni yàlla ma nga ma nga fa def tombam. Mm. pare ay waajtaayam yëpp bés bu nekk bu ak mu ñekk mu dem changé waat ko indiwaat te. macha allah. uuf ñu ñun ñëpp uuf suñu njaboot yëpp. boo amee naqar bànneex yëpp moom nga koy jëkk yëgal ndax boo defee sa géew wala sa làng te mm. loolu der taxawul da ngay def ni yow amuloo dara mm. kon cër boobu nag yàllaa ko ko may dëgg la kon nag tey jii Sénégal ñàkk na ñun ñëpp ñàkk nañ jërëjëf jërëjëf